waaw sunu daje bi li ko waral mooy tàggatu rek euh, sëriñ daare yi nga xam ne ñoo nekk ci biir daare di jàngale alquran rabita bi dafa gis ni jaadu nañu di leen defal ay formation di leen tàggat ngir métier mi nga xam ni moom la ñu yor dafay métier moo xam ni mu metti la te xale yi nga xam ni it ñoom lañuy ñuy jànkuwanteel am ay àq ak ay yelleef yoo xam ni dañ ko war a xam ndax loolu mooy tax ñu xam nan la ñuy dunde ak ñoom kon jataayu tey bi mooy tàggat sëriñ daara yi ba seenub liggéey gën a mën a sell gën a mën a tege ciw yoon tàggatu bi bi ko rabita bi tàmbalee organisé ak léegi euh, ñaar fukki at yi topp na kon ñun jàpp nañ ni dawra bu ñu def rek euh, séminaire bu ñu def rek bu jógee ci séminaire boobu ñu ngi waajalaat beneen séminaire ndax fi mu toll nii am na séminaire bu ñuy waajal boo xam ni séminaire boobu ndey daara boppam bëgg nañ leen woo former leen ngir ñu xam koñ bu nekk ndey daara ya fa nekk maanaam nan la ñuy jàppalee daara ja nan la ñuy jàppalee tout tànk ya ba maanaam yan bu dis bi mën a woyof bu baax a baax a baax ci sëriñ daara yi kon ñun lii day loo xam ni saa bu ñu jógee ci leen rek day am leneen loo xam ni mu ngi ci sunu kanam ci lii la ñu jaar ba téere boobu nga xam ne mooy dalilul mudir wal muallim maanaam lii moo ko jur ba liggéey téere boobu te incha allah am na yeneen yu nekk suñ kanam. ci daje président ba dañoo waxoon ni rek euh, concours bu fekkee ni président daf koy organiser muy concours international. dafay baax ñi nga xam ni ñooy jàngalekati alxuraan yi nekk ci biir réew mi maanaam man cee gis seen bopp ndax gis nañ ni concours bi weesu lauréat yi nga xam ni dañoo gagné woon ay prix ñoom rek ñoo ci gis seen bopp waaye daara yu bare bare bare bari gisuñu ci seen bopp kon wàcce ko ci baas bi mu tàmbalee ci baas bi maanaam jàpp nañ ne loolu moo gën daal ndax mooy tax sëriñ daara yi man cee gis seen bopp bu baax waaw loolu yi tamit boo gisee ñu di ko wax rek maanaam tekkiwul ni daara yi dañoo amul lu ñu dundee wala daara yi dañoo yaakaar état waaye day loo xam ne comme wax nañ ko ba nit ñëpp dégg ko loolu la jaadu mooy ñu àggale ko fa mu war a àgg euh, loolu mooy 6 milliards yi nga xam ne président waxoon na ni maanaam daf koy génne 1 milliard bi mu jënd ko ab dund jox ko daara yi maanaam cinq milliards yi ñu def ko ay ambulon jox ko daara yi loolu dafa séddale bi ci boppam moo tegewul ci aw yoon ndax loolu jàpp naa ni ñun mm, mm, bañ ñu ciy laaj xalaat lañ leen waxoon mooy association yi nga xam ne dañoo nekk ci biir réew mi ëmb sëriñ daara yi loolu buñ koy séddalee dañ leen a war a woo bañ ñëw ñu jaarale ko ci ñoom waaye buñ ko jaaralee feneen yëf yi mënta tege ci aw yoon ndax bu jëkkaan dañ daan wax ni maanaam jàngalekati alxuraan yi organisé wuñu waaye loolu yaakaar naa ni kenn waxatu ko ci réew mi fi mu toll nii euh, loolu moo taxoon ñu daan wax ni buñ dee séddale ñoom xamuñu kan lañ koy jox waaye léegi nag xam xam nañ kañ kuñ koy jox ba noppi teg ko fa jox ko ñeneen loolu moo tax séddale bi mënta jaar aw yoon. xanaa sant cant gu yaatoo yaatu goo xam ne dañ koy sant section wu Dakar bi nga xam ne Serigne Hassan moo ko jiite ànd koog mbokk yu baax yi nga xam ne ñoo fi nekk a ah, muy taxawaay bu rafet boo xam ne eh, ni ko sëñ Hassan waxee ñaar fukki at yi eh, weesu na ko waaye nag moom ak ñi mu àndal jamono yi nga xam ne ci lañ jiite eh, section wu Dakar ak léegi. gis nañ ci taxawaay boo xam ne góob ma ne am na benn section bu leen gën a dox ci rabita bi ñun en tant que secretaire général gisuñu benn section ci rabita bi boo xam ne ma gën naa dox bu Dakar kon sëñ Xasan euh, li muy tegtale mooy gis-gisam bu rafet ak yaatalam ak euh, séminaire bi boo xoolee kilifa yi fi teew ak borom xam-xam yi fi teew ak organisation bi euh, te ni koy waxee jamono bu nekk suñ loxo moo cay nekk waaye xaaruñ ci kenn di fàttali mbokk yi daara yëpp ne. Eh, loolu sëñ Xasan junji ci état bi ak concours alquran bi ni nga xam ne noonu lañ koy doxee doxale ak it li xam ne diggee woon nañ ko président diggee ko te di ko ne dañ koy joxe te ñaar yooyu bu ci ne am na ci ay seetlu yoo xam ne seetlu nañ ko ci ñun waa daara ji rawatina rabita bi gis nañ ne li ci mat defaraat bari na lool lool. waaye itam dañ koy wax ngir moom moo ko diggee te wane ne ñoo ko moom dërëm dërëmaanu ñi ci des ñoo ko joxe. mu ne dañu koy séddale loolu moo tax ñu di ko ci soññi ak di xool ne nii lañ ko waroon defee mu gën a baax waaye teewul nag ñoo ngi dund ñoo ngi dox mu baax a baax di fàttali mbokki daara yi rek na nañ bàyyi xel ne séminaire bii mu am tey te daan ko am ñu fas yéene mu di ko gën a amal mooy nañ formel suñ bopp suñ bopp nañ formel suñ bopp suñ bopp ku ñëw rek fekk ñu ci waaye ñun xaaruñu kenn lool mooy li am solo. à travers cet atelier de formation donc la Ligue des écoles coraniques du Sénégal. et plus précisément en sa section de Pikine sous la présidence de Serigne Hasse Diop vise à améliorer la capacité de de ses membres autrement dit les enseignants et les directeurs donc c'est pourquoi on a retenu les deux, ces deux thèmes majeurs le première consiste à faire savoir aux, aux, aux acteurs les, les droits de l'enfant dans le code pénal du Sénégal euh, qui est un thème très important Donc le deuxième thème porte sur les bienfaits résidents sur l'enseignement du Saint-Coran. Donc ces deux thèmes-là sont retenus dans le but de pouvoir motiver et de sensibiliser les acteurs qui interviennent dans les écoles coraniques, autrement dit dans l'éducation coranique. Donc c'est ce qui a motivé cette rencontre. On a d'autres activités parce qu'on a un plan d'action qui consiste à Euh, promouvoir les sciences coraniques et à vulgariser même les sciences religieuses. Donc on a d'autres formations euh, telles que la formation des Ndayi Daara parce que eux aussi ce sont des actrices dans le secteur. Donc elles ont besoin de formation. Mais il y a aussi d'autres activités qui sont prévues. Et cela est, euh, comment dirais-je, consigné dans le document que l'on appelle planification stratégique élaboré par la Ligue des écoles coraniques du Sénégal en sa section de Dakar. Nous lançons un appel solennel euh, à l'État du Sénégal de pouvoir honorer les engagements qu'il a pris lors de la rencontre avec les Dara et lors du concours international du, du, du Saint-Coran, euh, lequel appel consiste à donner aux Dara 6 milliards, 6 milliards de francs CFA. Donc là, nous lui lançons un appel pour que cette subvention-là puisse arriver au niveau des, des, des, des, des méritants. Autrement dit, ceux qui méritent ça, et ce, ce ne sont ni rien d'autre que les daara Donc nous lançons en appel à l'État de pouvoir vraiment euh, donner ça aux méritants. L'organisation de ce récital, donc les, les, les organisations coraniques, ni, ni, ni, ne se voient pas là-dedans. Là, là donc on, on, nous voudrions aussi demander à l'État de pouvoir mieux impliquer les, les, les, les, écoles coraniques, autrement dit les acteurs qui, qui, qui interviennent dans le secteur. Parce que vraiment, il y a, y, a, y, a, y a, beaucoup d'acteurs qui ne, se, qui, qui ne, qui ne sont pas au courant de ce qui se passe.